nanu jàll nag léegi ci laaj yi ngeen ma doon bind ci bañ a ànd ak jigéen ndax lu baax la ci góor lii mooy sama xalaat mooy gu bari gi tax na ba na góor gu nekk am jabaram jigéen ju nekk am jëkkëram jëkkër war naa def warugaru jëkkër ci jabaram jabar it def warugaru jabar ci jëkkëram jigéen ji amul sañsañ ci yaramam moom kenn jëkkëram moo ko moom ni ki noonu it jëkkër ji amul sañsañ ci yaramam jabaram moo ko moom bu kenn tere boppam moroomam su dul ni dangeen a mànkoo ci def noonu ab diir ngir gën a mën a wéet ak yàlla ci ñaan waaye su loolu weesoo nangeen doxal yoonu séy lu ko moy seytaane dina leen fiir ndax seen ñàkk maandute li ma leen di wax fii du ndigal waaye dama leen di xamal li ñu leen may ngeen def ko ndaxte dëgg-dëgg suma sañoon kon ñépp mel ni man waaye ku nekk ak li la yàlla jagleel kii ak may gi kee ak may gale lii laay yëgal ñi seyul ak ñi seen jëkkër dee baax na ci yéen su fekkee dangeen a toog rekk ni man bañ a séy waaye su ngeen mënula téye seen bopp nangeen séy ndaxte séy moo gën xemem di leen gaañ ñi séy nag maa ngi leen di jox ndigal lii borom bi moo ko waxoon du man jigéen ju séy warula tàqalikoo ak jëkkëram te bu tàqalikoo ak moom bu mu séyaat mbaa boog na juboo ak jëkkëram te bu jëkkër ji fase jabaram ñi ci des nag lii laa leen di wax boroom bi waxu ko woon su nit ku gëm kirist amee jabar ju gëmul te mu nangoo séy ak moom waru koo fase naka noonu it su jigéen ju gëm kirist amee jëkkër ju gëmul te mu nangoo nekk ak moom warula tas li tax ma wax ko moo di jëkkër ju gëmul yàlla sellal na ko ndax li mu ànd ak jabaram te jigéen ji gëmul yàlla sellal na ko ndax li mu ànd ak jëkkëram ji gëm lu ko moy seeni doom dinañu am sobe te fekk dañoo sell waaye nag su fekkee ki gëmul bëgg na dem na dem ci wàllu googu nag ki gëm kirist muy jëkkër ji walla jabar ji amul benn tënk ndaxte yàlla moo leen woo ngir ngeen dund ci jàmm loo ci xam yow jigéen ji ndax dinga gëmloo sa jëkkër musalkat bi walla déet loo ci xam yow jëkkër ji it ndax dinga gëmloo sa jabar musalkat bi walla déet ku nekk nag na dund ni ko ko boroom bi jagleele mu méngoo ak ni mu meloon bi ko yàlla wooyee moom laay tëral ci mbooloo ñi gëm yépp ki xaraf bi ko yàlla wooyee warula jéem a far màndargaam xaraf bi ki xaraful bi ko yàlla wooyee aajuwul mu xaraf xaraf ak ñàkk xaraf lépp a yem li am solo moo di topp ndigali yàlla yi na kenn ku nekk jàpp ci li mu nekkoon bi ko yàlla wooyee ndax jaam nga woon bi la yàlla wooyee na ci sa xel dal waaye soo amee bunt ba yiwiku nanga ci jaar ku nekkoon jaam bi la borom bi wooyee borom bi goreel na la ba tey ku nekkoon gor bi ñu la wooyee jaamu kirist nga ginnaaw yàlla jot na leen ak njëg gu bu leen doon jaamub nit mbokk yi faw ku nekk wey ca kanamu yàlla ci fànn ga mu nekkoon bi ko yàlla wooyee ci li jëm ci janq yi awma ndigali boroom bi waaye maa ngi joxe sama xalaat ni ku ñu wóolu ndax li ma jot yërmandey boroom bi bu nu seetee tiis wii fi teew nag defe naa ne li baax ci nit moo di mu sax ci li mu nekk ndax takk nga jabar bul wota tàggoo ak moom ndax takkuloo jabar bul wut jabar waaye nag boo séyee defoo bàkkaar te bu janq séyee deful bàkkaar waaye ñi séy dinañu am naqar ci àddina te naqar woowu dama leen ko bëggoon a fangal yéen ñi séyagul lii laa bëgg a wax mbokk yi biir bu gàtt rekk a fi des lu weesu tey na góor ñi am jabar di def ni bu ñu ko amul woon ñiy jooy mel ni ñu jooyul ñiy bég mel ni ñu bégul ñiy jënd ni ñu moomul li ñuy jënd ñi jariñoo àddina bañ cee xër ndaxte àddina si ci ni mu mel dootul yàggati bëggoon naa ngeen bañ a am benn xalaat góor gu takkul jabar dafay bàyyi xel ci mbiri borom bi di wute neex borom bi waaye ku takk jabar faaw mu bàyyi xel ci mbiri àddina si ak nu mu mën a neexe jabaram te noonu dafay daldi bare soxla te jigéen ju sëyul walla janq dafay bàyyi xel ci mbiri borom bi bëggu ko jox yaramam ak xelam waaye jigéen ji sey dafay bàyyi xel ci mbiri àddina ak nu mu mën a neexe jëkkëram seen njariñ a tax ma wax lii du ngir teg leen yen bu ngeen àttanul waaye ngeen mën a jàppandil borom bi ci njaamu gu rafet nanu jàll nag ci mbiri kiy takk ngoro te amul pasteefu takk ndaw si su fekkee ne waxambaane wi xalaat na ni jëfewul nu jekk ak janq bi fekk muy wees ak ndawam te mu xalaat ni daf ko war a takk kon na ko takk ni mu ko bëgge deful bàkkaar waaye nag su dogoo dëgg ci bañ a takk fekk sagoom rekk a tax te kenn tëggu ko ko kon ba tey def na lu baax noonu ku takk as ndawam def na lu baax rawatina nag ku takkul jigéen ji séy dina ànd ak jëkkëram giiru dundam waaye su jëkkër ji faatoo mën naa séy ak ku ko neex su fekkee ne góor gu gëm la moona nag dina gën a bég bu toogee noonu rekk loolu mooy sama xalaat te defe naa ni man itam am naa xelum yàlla